ñëwaat tey seen naafila weeru koor tey nag mën naa ñaaw mën nañu wax ne daanaka ci guddi yu mujj la bokk yu mujj a mujj ndax mooy guddi ñaar fukkeel ak juróom jombul mu nekk bu mujj jombul mu nekk nga euh, xam ne mooy jiitu bu mujj guddi ñaar fukkeel ak juróom-ñeent nag euh, sëriñ bi wax na bëgg nañ ko ci julli mu julli ci ñeenti rakka ñeenti rakka rakka bu ci nekk fatiha benn yoon watiini juróom yoon xul euh, yaa el kaafiruuna juróomi yoon xul huwallaahu yoon ñeenti rakaa rakaa bu nekk euh, faatee benn yoon sóorat fiin ba mu jeex juróom yoon xul euh, yaa ayyuhal kaafiruun ba mu jeex juróom yoon xul wallaahu ahad ba mu jeex juróom yoon mu bëri ay ngëneel lool ci koo xam ne def na ko mbokk na kon mel na ni ñu ngi ci guddi yu mujj yi tey wala bi suba mooy suñu jotaay yu mujj ñu ñaan suñu borom tabaaraka wa taala ci mën dam nanguñ suñu jaam yàlla te lépp loo xam ne noonu ko ci doon def rek ci lu baax suñu borom nanguñ ñu ko te fulal ñu ko te euh, te te te aaral ñu ko te ñu yàgg koo taxaw yàgg fekk at yu bëri ak wér ànd ak jàmm ànd ak tawféex di leen jox dig daje ba suba wala ba déwén ak jàmm incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa